léegi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan suñu page Facebook bi di jant bi TV ma ne bul ko yeexee dawal gaaw fekku ñu YouTube mën ngaa def jant bi TV duggal gaaw te nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na cloche bi loolu yi mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indi nañ leen site internet mën ngaa def jant bi TV point com suñu ñetti rajo yëpp mën nga koo déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox ànd ak moom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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu nuyu nañu mbokk yëpp ziar nañ leen. ñu ngi leen di ñaanal ngeen ñaanal ñu yàlla boo ñu ci defal xéewal ci bakk Sëñ bi ñu jiitalee ci nuyoo bi Sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir noonu lay nuyoo kilifa diine ji yëpp. di nuyu Serigne Cheikh Aliou Mbacke di ko ñaanal yàlla nañ ko daan ñaanale yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiq ba yan yi mu yanu ngir liggéeyal maamum Cheikhul Khadim radiyallahu ma mu àggale ko jàmm ñu ànd ko ak moom noonu laay nuyoo sama sëriñ alxaaji Mouhamadou ma amul ñang ca Touba ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko wér defal ko jàmm nuyu sëriñ Afia Ñang al imam sëriñ Cheikhna Mbacke Abdoul Wadoud sëriñ Mbacke Abdourahman sëriñ Samb sa ñu ngi leen nuyu bu baax a baax nuyu itam sunu sëriñ sunu ustaas sëriñ Basirou Diop imam ca Kaolack ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal yàlla dañu dem ba Louga di nuyu sëriñ Mahamadan Mbacke moom Cheikh Mahamadul Mourtada di nuyu sëriñ Abdoulahi Fall di nuyu sëriñ Thierno Basirou Tall sëriñ Mourtada Mbacke ca Ngaañax Jeng mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax a baax moom mi ñu baaxee may ñu wér ak fekk ak tal ba ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaanu koor ngeen ci ànd ak seen mbokk maam Cheikh ci waxukaay bi ci machine bi ak ci caméra bi Alhaji Ibrahima Cissé mi ngi feggoo ak sëriñ Sidi seen muy animateur bu mag a mag Sering Cheikh Lo ak serigne Abdou ndjay mu nekké Touba ci walu radio bi Abdoulaye sam coordinateur ma nga fofu Alaaji Daawuda ma nga fofu ci Louga ñu koy ziar baax a baax mbokk yi comme niñ koy and ak yeen ci waxtaanu koor yi ñu genn ñu nekkon ci mawdo bu ama am solo muy at tarbiyatul islamiyya yar ci islam ñu bané won yar am solo gi nga xam am na ko solo tay mu doon lo xamni mënul ñak ci doomu adama ndax yar mom bu amu ci doomu adama li tax borom bi subhanahu wa taala bind ko wacc ko fi day manké kon motax ciar yar al muhim lu ama am solo la ci doomu adama ñewon nañ ci tomb ñëk ba leer la lan moy yar ñewon nañ tam ci tomb ñaarel bi wax kan mo wara yar ak kimi yar te inshallah allah dañuy ñëw ci ahamiyya bi yitte bi nga islam jox na di ndokkel ñëpp nak ci wéru tedd yi mi cheikh ramadan mubarak ñaan yalla subhanahu wa taala mu nangu ñu suñu jaamu ak uh, suñu ñaan xam ngeen ni niko ko yonte bi sallallahu alaihi wasallam jangale fukk rahma mooy yërmande kon mel na ni génn nañu fukki njëkk yi ñu ngi dugg fukki yi nga xam ne moom moo ci topp yërmande yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala digée ko ci yàlla nañ ko yàlla defal bi barakatu saxur ramadan bi barakatul quraanul karim ñi nga xam tam yàlla def ñu jiitu ji ñu ñaanal leen yàlla yàlla xaar leen àjjana ñun ñi nga xam ne ñoo fi nañu yàlla may wér ak tal ba ñu fekk ay at yu baree bari barakat rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi niñ ko junjee léegi rek tey dañuy ñëw ci ahamiya bi mooy yitte ji nga xam ni moom la jox yar ndax bi may taarif waxoon naa leen yar mooy dañuy tàggat doomu aadama bi ci ay man-manam ci ay man-manam dañ ko ci tàggat ci wàllu jaamu yàllaam subhaanahu wa taala nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ko bind wàcce ko fi ngir mu jaamu ko bi ñu xamlee loolu xamle woon nañ tamit kan moo ko war a yar ñu waxoon ni ñaari waajur yi ndax borom bi subhaanahu wa taala ci ñoom la ko jaarale wax ni doomu aadama bi muy bi dafa judd ci fitra fitra mooy dafa set ñu misaaloon ko ci morso bu weex tàll morso ba lépp loo xam def nañ ko ci mu doon ay taq-taq ka yar morso ba moo ko ca def moo tax mu ne moo koy def mu nekk yahud bu mat yahud wala moo koy def mu nekk nasaraan bu man nasaraan wala moo koy def mu nekk jullit bu mat jullit kon responsabilité bi mooy waajur yi xu anfusakum wa ahlikum naaran moom mooy responsable bi nga xam moo ko war a yar yar ko nag ci anam yu rafet ndax moom ni mu mel rek loolu rek lay mën a def ci moom ñu waxoon ni isaa kaana rabbul bayti fu yaddufu daaribahu fa siimatu ahlul bayti kulluhum raqs borom kër gi ni mu mel rek ni muy jëflantee rek ci njabootam njabootam day jàpp ne loolu rek mooy dëgg ndax xale bi lu waajuram góor def wala lu waajuram jigéen def rek jàppal na ne loolu rek la war a def kon moom ñoom ñoo ci war a jiitu war a am melokaan bu rafet war a yaru war a jub ba ki nga xam moom la ñuy teg ci yoon léegi mu mën a jub ndax faaxi du sey in laa yuxti ku ñàkk mbir doo ko mën a joxe kon yar boobu buñ ko defee par résultat bi mu war a jur mooy teggin da nga dégg ñu wax nit da am na yar am na teggin kon yar mooy dañ koy tàggat waaye buñ ko tàggatee ba pare nag li nga xam ni mooy mooy des ci moom mu mën koo jëfee loolu la ñuy wax teggin moo tax Seexul Xadim radiyallaahu anhu mag ñi nga xam ñoo nekkoon nag moom xam teggin solo gi mu am solo ak sëñ tubaa ñaan gi nga xam daana ko ñaan waare gi nga xam daana ko waare ñu ne woon sëñ bi dañoo bëgg mu defal leen téere boo xam day jàngale ci euh, ci teggin ndax boo demee ca xasida madlabu sifa da nga dégg sëñ bi di wax ni wa hablana al aadaaba wal masaaya wa kufana kasala fil awxaati yàlla yàlla nag ñu may ay teggin yàlla yàlla nag ñu musal ci lépp loo xam ni ak tàyyel la ci bépp waxtu kon solo gi mu am solo moo tax mag ñi waxoon seexul xadim radlaanu dañoo bëggoon nga defal ñu ab téere boo xam ni daf ñuy jàngal teggin haada wa inni yowma su ijaaba bahdil muridina sawit inaaba sëriñ bi daal tontu daal leen defal benn téere buñ tuddee nax ju xadaawul xaaj moo tax mun xattala bu nasman xawaata adduba li yetta addabu wasaako wa jabaa ñu sàkkoon ci moom mu defal leen ay woy yoo xam day am teggin ngir ñu mën a tegginu ndax teggin kat nit ki lépp loo xam mu ngi koy wut te amul teggin loolu du ci mën a am texe du ci mën a jariñu is kullu man bi xayri raama tibaa fa innahu yaxrumu fawsan wantifaa mu ne is ngir képp koo xam ne raama sàkku na bi xayri tibaax ci lu dul ay teggin fa innahu naka mu yaxaruma danañ ko xañ fawsan ak texe wanti faa ak jariñu kon nit ki lépp lu muy wut rek te amul teggin rek du ci jariñu ndax yonente bi sallallahu alayhi boo gisee mu gën ñëpp dafa wax ni yàlla moo ma yar <clears throat> rafetal yar bi adaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi moo tax sëñ Tuubaa radiyallaahu wax ni wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru maxtaza bihi suwaysi mu ni yar mooy ngën ji denc ci ñaari kër yi àdduna ak àllaaxira te képp koo xam ni bëgg nga ak ak ak tedd nga ci yar rek nga ko mën a amee ñun ko kon léegi nit ki bu amee teggin limal nga ñu baree bari yoo xam ne da daf koy jariñ mu ne bokk na ci day leeral sa xol li annahu munawwirul jinaan day leeral sa xol kama yuqarribu ilal jinaan nee na day leeral sa xol ba sa xol set leer nañ daf lay jigeel àjjana ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni inna fil jasadi muddaxa isaa saluha saluha al wa isaa fasada fasada al jasad allah wahiya am na benn cër ba na ci nit ki bu baaxee lépp baax waaye buy yàqoo lépp yàqu ñun ko yonent bi sallallahu am loolu mooy lan mu ni loolu mooy xol kon yar day defar xolu doomu aadama day lawet day baax day tabe day dëggu li mu yéene boppam la yéene ñëpp loolu nag bu amee day tax borom bi subhaanahu wa taala ko àjjana ba nga xam ni saa yu faatoo rek borom bi subhaanahu taala da ko yóbbu àjjana day waral tamit moom yar ñu lay tagg say dëkkandoo nim lay sori lay sawara day tax foo romb ñu ne xale bii de yar nañ ko kii de xale bu baax la xale bu jub la xale bu mën a nuyoo la xale bu mën a jox ay mag cër la dañ lay tagg ndax lii waral loolu mooy nit ki mën naa bokk ci askan wu ñaaw askan woo xam dañ doon def ay njombe wala di def loo xam ni gënut ñépp daan ko ñaawlu bu yàlla defee yow nga am yar bokk ci askan wa yar boobu day nëbb ñaawteef yooyu am ca biir askan wa wa huwa lasi jahala husnal adab yux fii jahalatan wa xobxu nasab mu ne wa huwa moom allazi mooy la xam ni jaxala day def xusnal adab gën jaa rafeti teggin yux fii day nëbbu jahalatan ak réer wa xubxa nasab ak ñaaw askan day tax boo jàngul dara xamoo dara boo ñëwee toog ci yar booy wax xam nooy waxee booy jug xam noo jugee lépp looy def nga boole ci yarak ak teggin kon dañ naa kii kat donte xamul dañuy jàpp ne ko xam la bu bokkee tam ci askan boo xam askan wu ñaaw la wuy def njombe loolu lépp daf koy nëbbu ba kenn kenn du ko xam kon su am solo gi mu am solo moo tax mag ñi kat ni sëriñ bi dañoo bëgg nga defal ñu téere boo xam ne daf ñuy jàngal ay teggin ngir ñu mën a tegginu ndax loolu dafa doon loxam lu war la ci doomu aadama ngir bu fekkee dafa bëgg texe fii ci àdduna bëgg texe bu yomal xiyaame Seexul Xadim radiyallaahu anhu dellu wax ni na ngeen xam ni naka teggin ziinatul aalim mooy taaru aji xamle wa mutaallim ak aji xamlu kii jàngale teggin taar lay def ci moom kii xamlu tamit kii jàng ay teggin da da da ay taar la ci moom waxiilatul xaaqil takkaay la ngir aji xellu ki am xel yar maanaam teggin takkaay la ci moom gis nga nit ki sax buy génn takk ay takkaay yu mel ni soxna yi ni koy doolee taar nee na yar tamit ab takkaay la ci ki nga xam ni mooy doomu aadama wala mu taalim ak aji lewet yar nag moom wa huwa rasul axlaaq mooy bopp jikko yi mooy bopp jikko yi maanaam jikko yi mi maqaarimul axlaaq jikko yu baree bari la ci lañ tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yar nag moo ne ca bopp ba wa huwa rasul axlaaq kon nit ki lépp lu mu mën a am xam-xam bu bari lu lépp lu mu mën a am te amul yar loolu du ko jariñ dara moom mooy rasul axlaaq moo tax seexul xaadim radiyallaahu di wax ni fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ila asa wa taabi fa bari xam-xam bi xayri adabi ci lu dul ay teggin jaalibatun dalay day xëcc dalay xëcc ila asa jëmale ci ay lor wa bi ak rek kon xam-xam li am solo lii tax nga mën cee jariñu jariñu ca day fekk xam-xam bi làmboo yar te bu làmboo yar ragal yàlla day dugg al ilmu maa aksaba xasiyata alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim mun xam-xam dafa la dafa la war a fàggul ak ragal yàlla nee na képp koo xam ne am nga xam-xam xam-xam-xam bu amul yar nee na kooku dalay delloo nga nekk ko réer koo xam ne ku ñuy yedd ngay doon kon xam-xam li am am am solo mbokk yi il faut mu ànd mu làmboo yar bu làmboo yar cee lay door a jariñ moo tax mu ni mbir yëpp bopp ba mooy al axlaaq nee na képp ko xam neenal nga ko sa lépp yàqu na faxat taxatta la wa tabata sa lépp day yàqu dangay ngay mujj sax ci nit ñi ak yàlla ku la gis mere la yàlla da mere nit ñi dañ lay mere saa yoo saa yu la nit gisee day day yokkat day ragal saa yoo toogee nit tamit nit ki mere la kon ñaq yar yàlla nañ ci yàlla musal bu nit ki amul yar rek kenn du sawar a jaxasoo ak moom du mën a am dara te lu mu am du ko mën a jariñoo kon yar mbokk yi moom mooy lépp ba tey ba mbokk yi bokk na ci yar ñu doon wax léegi nit ki buñ ko yaree mu am teggin dana xam lan la war a wax ak nu mu war a waxee ak fan lay waxee boo delloo ca téere nax ju xadaalu xaaj seexul xadim radillah mi ngi wax ni wa abidi lisaana xawlal xayri tafus bihi wa tug fa kulla dayri na nga miin na sa wax ju baax nee na boo ko defee da nga texe te danañ la fegal lépp loo xam ay lor la ndax ta bi sallallahu moo wax ni ku gëm yàlla gëm yowmal xiyaam na wax lu baax te noppi gëm yàlla gëm yowmal xiyaam na wax lu baax ta noppi moo de sëriñ bi delluwaat na wax ni abidi lisaana xawlal xayri taxus bihi inna lisaana lama awatta yaxtaadu nee na del wax lu baax mii ne la sa làmmañ ba wax ju baax nee boo ko defee da nga texe ndax làmmañkat liñ ko miinal rek loolu rek lay tàmm boo ko miinalee saaga fu mu waxee saaga boo ko miinalee wax ju ñaaw fu mu waxee day wax wax ju ñaaw waaye boo ko miinalee wax ju rafet wax ju teey wax ju tegginu loolu rek lay mën a wax moo tax nit ki war na miinal làmmiñ wax ju yiw wax ju baax wa xuuloo linnaasi xusnan deelu wax wax joo xam ne wax ju rafet la borom bi subhaanahu wa taala bi ma nammee yónni yonte yàlla Muusa ak Haarun ci Firawna te na ku ci nekk xam na ak kàccooram ku bewoon la demoon na sax bay wax ni moom yàlla la ana rabbukumul aala loolu na ko wax kon kooku mbewteem ëppoon na ndax ku dem banaa man yàlla la te mu yow am na ku la bind mooy yàlla kon kooku bewoon na waaye borom bi subhaanahu wa taala ba mu yónnee yonent yàlla Muusa ak ak Haaruun ca Firawna dafa leen ni boo leen demee na ngeen wax ak mu wax ju teey mu wax ju dal mooy yar bi ndax doonte kàccoor la waaye kilifa la na mbool am na mbooloo am na lu mu yërif kon am na cër boo xam des ko war a jox ndax tuuti kulla si xaqin xaqahu ku ci nekk am na cër bu mu am jox ko cëram moo xam lu mu mën a doon waaye cër bi na nga ko jox ndax loolu moo war boo ko defut ferl nga àqu jàmbur boo xam waroon nga ko jox te te te joxoo ko mu leen boo leen demee ca Firawna wa xuulaa lahu xawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw saa wax la nag moom wax ju nooy wax ju dal wax ju teey mun na am dana xalaat wala sax mu jëlee ci ak yàlla kon nit ki bu dee wax nit ak ku mën a doon waxam wax ju teey wax ju dal kooku sax bu naroon dëgër bopp waaye wax ji nit ki wax moom ci wax ju teey wax ju dal dana tax sax mu wëlbatiku ba la mu naroon def mu bàyyi ko ngir wax ji nga xam ni nit ki wax na ko moom kon nit ki ne wax booba wax ju dal wax ju teey wax ju baax te bañ te lam ci wax nag mu jublu ci yàlla rek boo defee yàlla fay ko moo tax ñu bëgg nit ki di taamu ñi may àndal da waxoon nañ ci dars bi ñu génn nit ki buy samp kër na seet bii a ñu waxee bii a mooy barab tubaab di ko wax environnement fi ngay dëkk ñeen fukki buntu kër sa kanam sa ginnaaw sa ndejoor sa càmmañ say mbokk lañu na nga seet seen jikko ba ngeen bokk jikko nga doora sanc defut jikko jani yor dana dana dana la wal wal wàll ko sa njaboot ta bu bu nekk jikko ju baax sa mbir dana yaqku nota radhiyallahu anhu wahni hanil mar'i la tasal wasal an qarinihi wa kullu xarinin bil muqaran yaqtadi mune naga laaj nit ki xaritam ibrahima siise na ñew sama koñ di ma seet si bëgg xam kan mooy maam Cheikh bu ñëwee bu mu jubali ci ay mbokkam na dem ci ay xaritam ca koñ ba ndax xam ngeen maam Cheikh ñu ne xam nañ ko lañu xam ci man danañ ko wax la mu gis ci ñooñu rek na xam ne loolu moo ne ca man kon nit ki war na taamu àndandoo bu baax àndandoo bu jub ndax la ñuy natt ci kooku rek loolu la ñuy natt ci yow kon loolu tamit lu ama am solo la loo xam ne nit ki ndax boo dee ànd ak ko xam ne day jëw yow da jëw booy ànd ak koo xam ne day wax lu lu amut yow it da wax lu amut ndax yaay ànd ak moom mi mi ngi la ci entraîné mi mi ngi la ci tàggat kon dangay wax lu amut yow tamit kon da nga ànd ak ku nga ànd koo xam day wax wax ju baax wax ju dëggu boobaa yow tamit danga nga mën a wax ju mel noonu da nga ànd ak koo xam bu mu di gëstu ayibu jàmbur am ñoo xam bu ñu toogee mbokk yi ci nit rek la ñu nekk ci deru nit deru nit rek. te la ngay wax ca moom bu fekkee sikk la bu ne ci moom nga koy wax yaa ngi koy jëw bu fekkee la ngay wax ci moom amut yaa ngi wax la ci ginnaaw dëgg te yow mi toog di wax ci moom am nga sikk soo xam miñ ci yow te kenn waxu ko moo tax Seexul Xadiim daal wax na ci biir nax ju ba bët bi bu xoolee sikku jàmbur na ko ni bët bàyyi li ngay xool bàyyi sikku jàmbur na am nga sikk te ni nga amee bët bay xool sikki jàmbur yi sa làmmañ wax ko keneen noonu la amee ay bët mën a xool sikk ba ba wax ko wala takun multafitan lil asharaat wala tubaahis abadan ani xawraat bul xool nit ki ay fakar saloon ay njuumtam nga koy waxtaane kon day mel na nga koy tuutal bul xool tamit awray nit ki la nga xam def na ko te gënut nga xay wax loolu tamit lay doon loo xam ni sikk su rëy rëy ba tey nee na bokk na ci teggin nit ki muy suturaal yaramam dangay gis borom kër boo xam day xëy suba xëy na kër gi du maanaam duusi mag yooyu la am nga xam duusi ci biti lay nekk mu war a génn war a sangu ji dangay gis mu jël sarbetam wodd romb ci diggu kër gi ñëpp di ko xool mu doon loo xam tamit bokkul ci teggin donte ca bitel nek solo sa yére nang daan solo yére dem ba àgg ca biir sang ba pare nga solaat sa sa yére génn waaye waddu Euh, jël sarbet wodd sa yaram yëpp nen na ci biti nga jàpp ni euh, fulla la fekk ñàkk ñàkk teggin la li xew ci jamono ji dañuy gis xale yoo xam ne dañuy sol tubéy bàyyi ko muy watu seen tubéy ja ci biir di feeñ ñu jàpp ne ñoom ñoo gaynde gi te fekk loolu tamit boo ko gisee nga xam ne kii ku ñàkk teggin la gis ko xam day bëtt nopp ba def ci jaaro jàpp ne tamit lii teggin la te kat day woote moom taalibe nangam la ci maanaam sëriñ sëriñ diw la yaakaar sëriñ diw la bëgg waaye mu yor melakaan boo xam ne sëriñ bi jàngaliwut loolu moo tax mu ne laa taltamis min xuyubi naasi maa sataroo fa yaxtika llaahu sitran an musaawika waskur maxaasina maa fihim isa zukiru wala tahib ahadan minhum bi maa fiika kon neen tamit bul wuññi awra yi ma loon wax ndax koo wuññi awraam suturaaloo bëgg koo toroxal yàlla toroxal la kon bul jéem a toroxal kenn waxan saraawi ka laa tax laa taxif abadan fa innahu min aadaab yuat nee na sa ah, li ngay sol moo xam sa sa tubay la moo xam sa yére la solal lu jot solal lu baax moo xam góor la moo xam jigéen la nee na bu ko wuññi mukk ndax loolu bokkul ci ay teggin nee na na nga moytandiku di génn sa biir ci biti ndax bu nekkee góor li tàmbale ci jumba xam ba ci bëtu woo moom loolu loolu awra la dañ ko xam sàng ko dañ ko xam na na ko sàng la ca des nag di tàmbalee ci jumbax ba jëm ci kaw donte mi ngi feeñ xëy na duñ ne xaraam na waaye awra la joo xam bu ko nëbboon moo gën ndax tam tegginewut da gis mbër moo xam nañ ko ci mbër yi gis ñu njàmb mel melakaan woo xam ni doy na waar te bu ñu waxee kat ñu ni xaalis bañ cey jëlee dañ ciy yóbbu seen yaay màkka te yow lañ la terewoon ne la lii baaxoo ngay def loolu di ci wut alal loolu mbir mu ñaaw ñaaw la neen nag loolu di génn sa yaram ci biti loolu ñu ngi ko jëlee ci giir gu ñuy wax fu saaqul fu saaqul xasaan ah, génn giir la woon goo xam ne loolu lañ leen xamee woon ah, loolu lañ leen xamee woon sollu so sollu yaraax sol loo xam ne baaxut ba nga xam ne ñëpp lañ ci miinoon mu doon loo xam ne teggin daal amu kon mbokk yi bu ma tënkee mooy yar bi doon yar nit ki teggin ni kon mooy na ko jëfe liñ ko doon yar nan na ko jëfe Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu ñëwee waajuram génn àdduna mu taxaw nag wara a ca daara ja mu ni njàngalem kese rek léegi taxuñu fee toog firil la téere yi nga ñu bàyyi liñ lay jàngal dañ la ci gàng jafe ko loolu mooy teggin ya ku bëgg loolu ñëw ànd ak ñun ku ko mënul ka mën ngaa yeewee ko kon mbokk yi mel na waxtu mi may dab euh, bind yi jeexut bind yu yaatu la xëy na lu ci nekk dañ koy talxiis dañ ci laal jàll ca leneen waa incha allah buñ ñëwaatee ci suñu yeneen bind danañ ci gën a yaatal bu baax a baax a baax ngir ñu ñëpp ñu mën cee jariñu kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiix di nuyu mbokk yi xam ñoo ne ci machine bi ma ànd ak ñoom ñoom sëñ Ibrahima ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan yàlla ñu ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sàmm di sant auditeurs ak yëpp xam na di tuddu tur ndax waxtu bi dab na ma day day xaw a xat waaye daal képp kuy dégg suñu kàddu rek xamal ne ñu ngi lay ziar di la jégalu di la ñaanal yàlla lu ci jub ñu sante ko yàlla lu ci dëng ñu xam mbokk mi doon wax la waaye am jub rek la ci jublu woon yàlla na yàlla defal tawfiix yàlla na yàlla defal taysiir بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة شهر رمضان المبارك إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته wa barakaatu léegi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan suñu page Facebook bi di jant bi TV ma ne bul ko yeexee dawal gaaw fekku ñu YouTube mën ngaa def jant bi TV duggal gaaw te nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na cloche bi loolu yi mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indi nañ leen site internet mën ngaa def jant bi TV point com suñu ñetti rajo yëpp mën nga koo déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox ànd ak